alhamdulillah alhamdulillah la ilaha illallah laa ci jëmm yi lay lay la laa ci ruu yi lay lay la laa ci kaw gi lay lay la laa ci suuf si baay toj na xol yi sal ci mbootam laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah allah ilaha illallah illallah yàlla yàlla la illallah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 la la yàlla bàyyi ne la ilaha illa la ilaha illa la bàyyi moo ne la ilaha illa la laa ilaaha illallah baay laa ilaaha illallah way baaya jiitu na laa ilaaha baay du seen maro ilaha illallah Ibrahima Diouf noon na mbaal muy jàpp benn qualité jën borom mënta mbaal mënta mbaal allah ilaha illallah baay la ilaha illallah way baay waayoo kenn la la ilaha xutbu bee ñas ñas laa ilaaha illallah way miim deel moo di baay gëm leen ne laa ilaaha illallah baay laa ilaaha illallah la ilaha illa الله كون كل حققت عين ذاتي laa ilaaha illallah illallah illallah baay la la ilaha illallah la ilaha illallah allah la la la ilaha illallah kibritul amar bidamas di baramai aboo daxri anta baraama ñu ngi ñaan sa ngërëm yàlla nañ di jaami peyi sey di baraamaay jaawul leen ma maami tiijaan yi ki ummu baraam yaaram baa nga eli yii na sey di baraamaay suñu maam ju yiw ja maam astu radiyallahu anha yal na yàlla taf ñu ci moom sey di baraamaay lëndi ja ca tàkkusaan la maam di tàggu baraham ne may ñu ndigal mbir mi mën na sëy di baramaay ba ñuy julli timis suñu maam jarantere lii na jéebéer jaa nga ñëw di teetu yaay baramaay lëndi ja maam wuyoo boromam rabu samawaati habiba laa wuy na boromam sëy di maam aysatu bintu ibrahima ki yaay barham yal nañ dajeel yi na seydi barham maay maam ummi njaay maam roqi njaay xadijatu xiyaar am ngeen kër fayen li yi na seydi barham maay yéen ñi cheikh doon gàddeloo yaayam ba ngeen toppatoo ko da ngeen dëkkeen li yi na seydi barham maay ba ñuy yóbbu maam ca zaawiya maam aji abdallaay ba ba sab keroog doy na xaatir seydi barham maay oto baa nga yolli ndox si kër sa jolli papaar moom lañ tere jaawe ñaa seen gaañi baramaay barhamaa nga naan xooloo laa ilaha illallah abdoulaye jëm fa boromam seydi baramaay ba ñuy wàccee maam ca buntu baabu ba cheikh Tidiane teew na mboolem saabaam ya teew nañ seydi baramaay bay haji Babacar ak naan jéggal leen ci suñu yaay ñoo koy yor ba jox ko boromam seydi baramaay bayaaji mamat sëy na boog sëy di mbay ak sëriñ maas ñoo yor mam ba jox ko boromam sëy di baram maay talaata jëm dukkee màggaanam booba bi sa màgg mel ni yow ma yu ban soo naay gaañu baram maay ba ñuy wàccee maam ca buntu xabru ba jibril yëngal laf ya wàccee peyin lii naa sëy di baram maay jibril a ngi leen naan firdaw seeg jannatul maawi dem leen xeeli yi na tertu yaay baramaay maaliku ridwaan dajale ngir yoot yi te naan xeene leen ni xeeli yi na tey ñu am gan sey di baramaay ngir yoot ya rëkk càmbur ya te naan dajaleen pare leen ndax ñu dem ca keeba tertu yaay baramaay nabeen ko naan ana faatumata bintu dajaleel jéebéer ji fab leen dara koy pooseel yaay baramaay faaton ko naan ana xam saawu yaay jiite gàngoor gi fab leen darapo yi pooseel yaay baramaayi gàngoor gàngarang fa këri ga ca pey meliina jéber jàngarang fa keeba di baramaayi na ben ko naan ana bilal takkal leen ma buraax damay dem ca kee ba teertu yaay baramaay ba bilaali ba takke buraax ba naan pare leen saxaaba yi heure bi jot naa sëy di baramaay njool makka dal di jóg dal di war ci buraax saxaaba yi noddu ba ca keewee lii naa sëy di baramaay ba yonent bay wàcc ca ba la téléphone bay kaddu ba oo hadratul xudsi sëy di baramaay téléphone baa naan pare leen yéen ahlu lii na su 11 jibee da ngeen yaay baramaay naaru góor yaa nga rang fa bulwaar ya oto yaa ngay kornu junjung yaa ngay jib cekkee ba sey di baramaay naaru góor yaa nga rang fa bulwaar ya oto yaa ngay kornu yaa ngay jib cekkee ba sey di baramaay njool makka dal di jóg di seenu dal di janoog baarul xay bi dal ca noppak ba ñu yeb yaayu baramaay yonentan ko naan ana jibril naawal tàccu gaal gi yaakaar naa ne onze lay ñëw sëy di baramaay jibril yëngal junney laaf yi naaw ci alamul xay bi naaw bara jeeg pak baay yaay baraam maay jibril lan ko naan waa gaal gi ons korola bu leen bettin li yii na sëy di baraam maay jibril daal di piloté gi yi si drapeau yi rin mawtin li yii na sëy di baraam maay jibril daal di piloté gi yi si drapeau rin mawtin lii naa sëy di baramaayi jibril dal di piloté gaal yi si dara fooyi rin mawtin lii naa sëy di baramaayi bapak babay rombu firdaw si kanu takk urul ay ni jaa feetal yaay baramaay bapak babay rombu firdaw si dajeg roppalaan bi bawoo pey xeeli yi naa sëy di baramaay baabul fu yoo daati ax ni bàyyey ngeen gi doom kibritul ahmar bi dooma sëy di baramaay رب العباد ولا يموت رب العباد ولا يموت لا ينبغي سوى يا كريم موي مالك الملك دا موي وابو توت كو نيي ديغال كي لي كارو moo ñu amaloon ca coobareem di soowul te bu ñu fi jëlee du laajte kon bismillahi tey laay soobu mandiñ fa woykat ya awoon ba jot seen may ya foofa looy jéemaaw ngir bëgga woy baraama ba ñëpp xam ko mooy donoy rasuulu cey baraama ñas ahmadu ñëw farlul te dellu xaatir te jéema wax mbindeef yi kuy saawaaja ma wax ko ci wolof ngir gaayi nampul yaaram te ay mbiram xam kuy baraama dongoom yi maa ngi leen di jaale xut bu ba dem na tey baraamaasi yàlla ñu tànnaloon def ko muy imaamul awliyaayi yaaram ba dem na moo rawoon ci diine kenn mas na mam ne leen ma gongo déglul ma wax la fam rawee maasam ga kenn mas la gis kemam nee leen ma gongo déglul ma wax la fam rawee maasam ga nga daal di xam ko mooy doonay rasuulu cey baraama nes nga daal di xam ko mooy doonay rasuulu cey baraama bàyyi yow ma la rawee kuy maasam moo njëkk a wax balee gannaaw rasulullahi ñu daal di koy solal mantoob imaana ñu tappal ko rangal ko garaati xutbu keroog la bàyyi ña siitu kulul awliyaa yi yëpp naan ko balee xalilullahi ne leen balee xalilullahi rasulullahi jël ko fa sellal ko mbootam xam-xamu ilaaya ñu daldi di koy xebal mu jàll laaxut la la woo billaayi maa ko wóolu leeram nga xotti jàll fay jabaroot bala amee jalaal ba kumpal ngay waaja ñu jël ndampi gëneel ya jox baraama képp ko am ngëneel du moo la leeram nga xotti jàll fay malakut bala matee ba motti min ka masta manke moo doon nu mooy borom basiira ku ñëpp xamoon la min ko mastayiru leeram nga xotti jàll ijaabul maarifa looloo waral kum yar nga nekk ab aari bam fa bawoo la daal di jëm si naasoot ñu dénk ko suñ maam ja abdullahi muy góor gu mag ku ñëpp xam ci diine moo boole maandu ak jëfoo sharia mu gàddu leer ga jëm jolof ay mbokkam ñu dénk ko tuñ maam ja ak ta soxnaam la woon moo la woon tey soxnaam njànqa maraw na xayma jël na ndam la maam abdullah yi dellu jëm ci saalum buram mbayen ba gis ko def ko faali nekk na dagga samp na kër samba sanc na tey ba mooy dala baraama atam bidiw ba mooy dala baraama atam bidiw ba mooy dala baraama ci aw rajab mu samp yawmal xamisa ci waxtu asri xut bu wàcce soodaan kënu arasi yëpp réer billaahi guddi keroog la leer ya yëpp jolli lislaam a ngay fecc ngir bégee ju dumba guddi keroog la leer ya yëpp jolli mboolem góoru xaybu yëpp teew nañ keroog ca tay ba ngir jaayante baay ñas lislaam a ngay feetu ngir bégee ju dumba baay jar naa màggal. képp ku dib julli jógal màggal baay. képp ku dib julli jógal màggal baay. képp ku dib julli jógal màggal baay. ku bëgg a tekki ci àdduna ba ñëpp xam la nga jaari aljana jogal màggal ko màggal baay ñes mooy màggal rasulullah bëgg la billaahi giñ naa ko bismillaahi bés ba desi baay ba daal koy ngénte jibril la wax ci turwe maam Allaaji naan ko tuddee ko xalilullaahi kon da gis ca moom karaama laaxu ñu daal koy tuddee xalilullaahi ca mooma at lañ gis ca baay karaama laaxu ca mooma at lañ gis ca baay karaama laaxu ñu teg ca ñetti at noonam ya xeex ko ngir gaa yu koy indil idaaya ñoo ngi koy pareel seen mbir yëpp weeru ñi ne géwél ba sant jànce neegi ñooro moo nettali si mbir mi maam allaaji ñi taalibeeb pël bañ doon wax gàllaajo danaan sàmm nagam ya moo ko teeñal waaye man li ma wax barahama ñes moo ko teeñal ñes barama cey suñu waaja ca moom axat la baay njëkk a feeñal xar baax cey waaja ca moom axat la njëkk a feeñal xar baax cey waaja ci waxtu asri la baay digal baayam ba ci yow mal ax bi ñas pillaay mooy waaja baayam ba daal wax keroog ndongoom ya ñu jël bagage ya jëm sa réewum Gàmbi noonam ya ñëw fa tey ba fekkuñ fa kenn ñu def lu ñaaw taal këram ga ak jàkkaam ja tax na fukki at yu mat fa Gàmbi ndigal la del siwaat naan ko waajal dellu yow Abdoulaye yàlla moo lay sàmm ñes boo demee dëkkal ca ñoom bul feggu looy def ñu gis ko bu yàggee danañ la féexal maam Abdou laa dellu wax keroog ndongoom ya ñu jël bagage ya ñib si waat ci réew mi nekk na gambi jëm na réewum bambo ngir sàmm leer gi ñes bi laay moo farlu sanc na koosi koo ma mel ni waame noonam yi dellu gembuwaat billaahi bam fa bawoo la daal jëm ci kaw la képp kuy ut ngëneel demal ca kaw la ñes baraama ciy saawaaj baraama mel ni jant ca njabootam boo gisee baay ña sopp ko ngir taaram boo gisee baay ña sopp ko ngir taaram ba ci fukki yu teg tuut la yaafi te dégg alquran baraw kuy aalim te dégg alquran baraw kuy aalim ñaar fukki at benn la taalif téere ruxu la def téereem ba jaaxal naar ya mu jox ko baay ba baay ba daal koy jàng am lum ca gis rongañam ya daal di tuuru mu teg cay fan daal di daanu feebar te du ko fukki fan feebar ba yokku mu daal woo njaboot ga ngir dénkaane xam ne dël ba mat na ñett léegi mu faatu mu woo xalifa dénk ko njabootam allaaji Babacar la jox càkkaam ja mu woo allaaji mot sëy na bu dénk ko téeréem ya naan ko kuy sàkku quraan nga jox ko kaamil te kuy sàkku xam-xamal ko bul ko gàntal te dele mbiram ba ñëpp daj ku nekk jot cëram mu des baraama cey suñu waaja ñu nekk ba ñëpp dem mu daal koy woolu te neeg nag ba daal di tëj ya lañ wax ca foofa duñ ko wax ci mbooloo yàllaay ki xam xaybu te moo ko mbóotal tël ba mat baay ba faatu soxna ya muuru ndongom ya jaaxle baraama daal di fay desang magam yaa ñu fob ko yóbbu koo si jox ko daara ñu fob ko yóbbu koo si jox ko daara fanweeri at ci la baay taal faydum ba ngir xamle dellu rabbana borom bi sëriñ mbay rakkam ja moo taawam moo njëkka naan ca mandi mbir mi weeru maam habdu ñeng teexu amar ñëw xaaju yaw korite coow la far ne gàññe keroog la mbokkam yëpp mer ba daal di koy keroog lañ yendu saam ngir sàmm diine fa lañ jullee keroog baay di xutba baay ñes xutbaam ga raw na ay xalam ci xol keroog la baay firi alquran فوخ بي آية لا تخافوا ولا تحزنوا إن الله منا bii moo waral keroog ñu muñ bii coono di xeeti pël di séeréer di flawbe ñëpp a yendu keroog ca saam ngir jaayante baay nandal na réewu siin nandal na saalum baay nandal na jolof ba jàll fuuta baay nandal na Casamance ba jàll gambi ba soosa ya ak joolaa yëpp mandi lii wóor na teexu fay ca néegi bànjul tafsir ke baabi tey Alaaji Maam Mbay sa leer ya xotti jàll réewu Moritani nar yëpp a fàq daw jubal ci koosi ka njëkk a njow di wul nax wi ñaareel baa di seexaani ak Alaaji Ali fa ñu janoog min ka janee koosi ñu bokk sarxol danaan ko maalum la shakka fi baayay rasulullah la shakka fi baayay rasulullah la amul sikk Baay Ñas mooy rasulullaahi ñuy fardi ñëw gàmb ak siyaara di andi idaaya te ay sërif lañ te rasuulu buy jox nit ñuul idaaya moo ma xamal ne min ko rek kay waaja tuubal na ay tur ko tuubal nay muusi tuubal na ay katakole ki jarne tuubal na ay xeete xeet kenn mëntali Baay Ñas na réewu aw sa wóor na saane bay jàngal na ay alim yu jaaxal misra sigil na der bu ñuul sellal na bay nar mel na nooni diine kenn yëngootul bay ñes nar mel na nooni diine kenn yëngootul ma la wóolu la ilaha illa la la ilaha illa la فخلق لا يدول وعليكم من كل خلق سلاما لفق القيلة للعيادي عليكم من كل خلق سلاما لفق القيلة للعيادي الدكار أبا ببال بل نبالي قرب سقم الله بالبادي عليكم من كل قيد سلاما إلى قلب لا يطال الليالي باتياق إليهم وقرب بين أقرى الجفون بعتمادي وعليكم من كل قيد سلاما لما قلب وأنا ثرن وأثني بنياق من البقاء الوادي عليكم للكل قاد سلاما لباقى القلعة الليالي فتنهني تلك بقوة وجاه فكرتي صوصت بقدم رسالي وعليكم بكل خير سلامة إما خلق الله تعالى الليالي فكري مقلمين ولا تعالى بقصرين أن ترك ذاك المجال حلليني بملئ وانصري نصر المرء الأمين ناط المقادير عليكم من كل خير سلاما للمخلق لا يتول ليالي الليل بمكي وانصري نصر المرء الأمين ناصر المقادير عليكم من كل خير سلاما لما خلقه لا يطال الليالي خالدني بمخيب وقود تضطرب البحر نظم الليالي كيف مرئي لمن قديم سراء جبريل الأمين دون ليالي عليكم من كل خير سلاما إذا خلقي لا يطال الليالي كيف لما القديم سراع جبريل لمينته لليالي كيف مرئل الوزا كون ترا من سنا وذاك زين رجالي عليكم من كل خير من جلابا للواقع القلاية لليالي كيف متي فنيراني كذا لما جوم نصرا من نور متماد عليك من كل خير سلاما للباب الخير لا يتال الليالي كيف مدين البيار كذا لم تر نصرا من جود متواد عليك من كل خير سلاما الأقوام جميعا خذة من فطل سيادي وعليكم من كل خير تنامى إنفاق الخلاية أنا ليالي كيف مرئي لمن صنعوا إليه مدل فيه دون ما إجمالي كيف مرئي محمد وورور فاكفي أقوام الداعي بك الهادي عليكم من كل قلب سلاما للخلق لا يدال الليالي كيف لكن عرفي تطابل تلفى في جموع المدعي قبل النوادي عليكم من كل خيب سلاما تملا كيف أنت أثر كل بان حميد الفكر أنت صوائغ لدي وعليكم من كل قاق سلاما لفاق الخيل لا يتولى قم وألف الوطن جداون ربي مالك النعمة عون من ذا الجلال عليكم من كل قاع سلاما لما خلق إلى ضلال قد بدأ أفضل الوجود كريما من كرام الأفاضل الأبطال الثبت فضل الكرام وكل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 لا إله إلا الله Yes, la ilaha illallah الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله وعبر أرعام لا إله إلا الله الله الله الله الله وعبر dëkk ñu ala la la la أكبر Bye. man